bi di ngeen xamni kon ñi ngi ci dekk dekk bu sel di dekk alaaji malik si ni mo ko waxe leg rek ngeen jàkkaarloog jëm ju tedd jëm ju sel ji nga xam yaakar yaakaar ni su ngeen jàkkaarloog mom rek mi ngeen xar kanamam ci Tiwaawan waye mi nañu xar kanam mi tam ci dekk ba li nga xam modi di Touba minan nañ xar kanamam itam ci mbollem eutu keru diine yépp mudi khalifa Baye mbake si bin ñëwee ba nuyoog sëriñ bi sëriñ bi itam boole ñoo moom ngir ñu waxtaanee mbokk gi ndax mbokk gi day am solo loo xam ne dañoo war saa su nekk di ko waxtaanee ndax diggante Alaaji Malik ak Seexul Xaddiim diggante la boo xamante ni ñoo bokk la ñu bokk. kon nag bi ñëwee fii ci Tiwaawan genn am mbégte mu yaatu ak kontaan contentement bu rëy jàkkaarloo xalifa Baye Mbàkke mi nga xam ne. ca sëriñ Abdul Asis baax jaar ci Cheikh Mouhamadinil Mansour si yàlla na yàlla yokk diggante mbokku Tiwaawan ak Touba diggante El Hadj ak ku tedd ki di Seexul Xaddiim ak ñi nga xamante ni ñoo jiitu tey nan la mbokk googu deme sëñ euh, bisimilah. auzu billahi samiil aliim mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani muhammadin al fatih لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu sunu gan ñu danaa leen di wax ne tey ahlan wa sahlan wa marhaban wa raaxa wa inaqatan wa rihla di leen wax ne ad daaru daarukumu wal maalu maalukumu wal ahlu amlukumu wal amru amrukumu tey fii ci Tiwaawan ñun waa Tiwaawan ñooy gan ñi waaye yéen ñi dëkk ci dëkk bu tedd ba yéen a moom fii tey ndax ñee ñoo moom Tiwaawan di Tuuba Mbàkke ak ñi ko dëkkee ak lu meññ ci sëriñ Touba ñoo moom fii ci Tiwaawan waa Tiwaawan ñoo moom fële ca Touba mu nekk rek sotti ci ak def ci di jiital ci nuyoo bi nag sunu xalif général bu tedd bi ayadahu llah wa nasara yal teral te dëgëral yokk wéram te yokk fanam te yokk jàmmam ak suturaam ba fi mu bëgg yóbbu tariqa cheikh ahmad tijani bi yàlla na ko yàlla may mu yóbbu ko fa ëpp njortam lam ca bëgg a defit yàlla na ko ci yàlla may mu def ci lu ëpp njortam fam ko la mu ca yéene it yàlla na ko ci yàlla may mu def ci lu ëpp yéeneem ndax nag wax dëgg yàlla yonent bi xalifa la boo xam ni wax dëgg yàlla yonent bi dañuy wax ne rek li man ahala lahu ndax dafa mel ni yeyoo na ko ni ko ay mbokkam yi fi jaar yeyoo ñi fi jaar tabarakallahu defe naa ki mu fi wuutu tey mooy Cheikh Mouhamadul Mansour si mooy itam nekkoon fi xalif général de Tijani kooku ki mu fi wuutu mooy kan Alaaji Abdul Aziz si nekkoon fi xalif général de Tijani kooku ki mu fi wuutu mooy kan Serigne Babacar si radiallahu taala anhum di xalifa Cheikh Seydi Hadj Malick di xalifa Cheikh na Tijani Serif di xalifa sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii ci kaw suuf ah kon moom itam mu mel ni eh, Cheikh Ahmad Tidiane si maktuum ah ndax na maktuum rek am na lu mu làmb kon moom itam mel na ni lii mu yor tey mel na ni cëram mi ngi ci ndax it am na ci loo xam ni mandarga lay doon yoo xam ni ay signe lay doon yoo xam ni bu agsee rek ñu xam ni ki mu agsi ci moom cëram la te ki mu agsi ci moom itam moo ko moom di kan sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si ndax am na ñaari maam yoo xam ni kenn ku ci nekk doon nga xalifa Cheikh na Ahmad Tidiane Sërif maamam Seydi Hadji Malick doon na xalifa Cheikh na Ahmad Tidiane Sërif maamam Alaaji Abdoulahi Kan doon na xalifa Cheikh na Ahmad Tidiane Sërif baayam Sëriñ Babacar Si doon na xalifa Cheikh na Ahmad Tidiane Sërif doon xalifa xulafaawu yëpp fa tabarakallahu kon mu mel ni rek tabarakallahu li fi nekk amrun ilaahiyun la lu jóge ci yàlla la lu jële ko jóge ci mbindeef lu jóge ci mbindeef day am fu mu commencé am fu mu yem waaye lu jóge ci yàlla nag ci yàlla dong la commencé te kenn xamul fu mu yem ba tax na kon li fii ci Tiwaawoon kenn am na tàmbali waaye xamuñu fa mu yem e kon nag xalifa bi ñu ñaanal ko yàlla fa nu gudd wa ànd ak wér ànd ak jàmm ànd ak sutura ànd ak xofraanullah ànd ak ridwanullah andak nasrullah andak ak umri maasihat sihatil badani wal afiyati fi dini wa dunia yal ko defal defal ko njobotu dine jep defal ko njobotu tarixa bi yep bu ginnaaw bu jógee ci mom nak ci baxu yalla katanam ñi ngi nuyu aminam moy sen abdul asisi al amin fa tabarakallah turum wi wuyu nako lol ndaxit melna ni bayam serigne babakar sy moko ñëk bu wolu ci à l'âge de 400 ans la ko jël tek ko ci wetam muy aminam ba 1957 mu bayiko fi jëm ca boromam fekki xulafaaw ya ko jiitu di ay maamam ak i xalif ya fa jiitu al omarul al fahima yoro omarul fuutiyu ba ci cheikh Seexna Tijaani Sariif ba ci sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ci baxu yàlla katanam kooko di ko téye di ko téye di ko téye ba bàyyi ko fi bi mu ko fi bàyyee yàlla dogal nekkete ay magam seetlu nañu yaram seetlu nañu tegginam seetlu nañu sagoom seetlu nañu mbaaxam seetlu nañu muñam seetlu nañu ak ay activité am ci diina ji ak tarixa bi ñu ni ko ah li fi sëriñ Babacar si ci sa kilifa mu ne waaw nangu naa lépp yéen a ko moom mu ne kon nag yow itam dee ñu doxal ñu ngi toog te di la diglu te di la xool yaakaar nañ ni foo jaar rek foofa lay doon kenn doon nañ lu tax nga jaar fii kenn doon na lu tax nga def lii kenn doon na lu tax wax nii mu yore loola ba ginnaaw sëñ kër si bee laa jàpp daa si toogee dikk ni ko kaay mu ñëw mu ne ko ah sa baykat dafa la defoon ngay aminam man Abdoul Aziz itam danaa def ngay sama amin lépp loo daan doxal sa baay jox naa la ndigal deema ko doxal fépp foo daan demal sa baay jox naa la ndigal a fa demal lépp loo yore woon ci diina ji yokkal naa la ci art ay ay maratib lépp loo yore woon ci tarixa bi yokkal naa la ci ay maratib kon loolu bu ñu demee ba yàlla dogal alaaji Abdou moom itam jóge fi jëm ci boroomam fekki nag ñëm ko siqal ci fekk yéen bu rafet ndax toog na fi moom itam toogeen bu rafet toogeen bu tedd toogin bu yiw ba mu fi jógee itam ki toog mooy Cheikh Mahamadul Mansour ne ko alaaji Abdou Assis dafa la joxoon papa dafa la joxoon baat alaaji Abdou Assis jox la baat man mii nag di sa mag ànd kook sama rakk sëriñ ma Ahmad Tidiane mag Maktoum jox naa la baat bi jox naa la bopp bi jox naa la gémmiñ gi jox naa la làmmiñ jox naa la loxo yi jox naa la tànk yi moom itam mu di ko yor di ko yor di ko yor di ko yor di ko yor ba nga xam ni agsi na ci sëriñ cheikh ahmad tidiane si maktoum sëriñ cheikh ahmad tidiane si it def na ñi ko xam ni ñoom ko ju jiitu def ay baayam di al sëriñ babacar si ay baayam di alaaji abdou asis si magam di sëriñ mahamadou mansour ni ko kat yaa ko doon yor ci ñi fi passé man mii di sa magit jël naa lépp teg naa ko ca loxo defe naa lii may nettali kenn ku ne gis na ko ci rajo Pape Malick tak ci télévision bi Pape Malick si génn def déclaration bu rëy boobu ànd kooki bokkam ànd kooki rajam yaakaar na ki euh, ay doomam yu sëriñ Cheikh jur ci baaxu yàlla kattanam kon moom itam li ko yàlla dénk jox ko ko yal na ko yàlla sàmmal yal na ko yàlla wattul yal na ko yàlla téyel ba mu yóbbu ko fi magam ju tëdd ji bëgg di xalifa bi di sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si maktuum euh, maktuum nag moom da ko niru rek fa mu ne ma nga fa la mu ne ma nga ca moom moo xam digganteem ak yàllaam lépp rek tabarakallaahu dafa mel ni daal bu ñu daan wax suuf yi di ko melal di wax suuf yi di ko néral di wax suuf yi naan nii la naa la moom li mu ci wane gisaguñu ko ci mën a wane <coughs> lu toll noonu waaw jël na daal cëru suuf yu rek jël ko muy cëram te ko xam xam-xamam xam yitteem xam fa tabaarakallaahu culture am xam fa tabaarakallaahu xam-xamam xam ni mën naa génn na ma ko neexe mën naa taxawit na ma ko neexe waaye daal ni mu ko bëggee dafa seet nag ni ko yàlla bëggee mu doxale ko noonu ah ñu itam ñëpp ñëpp dañ ko koy nangul ànd ko moom ci ni mu ko bëggee mu jox ko rakam Abdoul Aziz Al Amin ñun tam ñu topp ci ginnaaw rakam Abdoul Aziz si niñ ko ko dénkee ak niñ ko ko joxe fas ko ci yéene jàppale maa maadaamal xayaat inchaa rabbal izzati ci baaxu yàlla kàttanam di wax ni nag ginnaaw bu ñu jógee foofu itam yéen ñi jóge tuubaa ca dëkk bu tedd ba jëkk ca jóge ca xalifa bu tedd ba di Cheikh Mouhamadul Makhtar mbakki mi nga xam ni li ma wax rek léppi Tiwaawan moo ko moom léppi Touba Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si moo ko moom defe naa firnde la ci moom Serigne Cheikh Ahmad si ba mu jógee fii gane ji sëñ Abdou Lahad ngan gu rëy la gu toll noonu defe naa mënatu la am ci Sénégal gu rafete noonu mënatul la am ci Sénégal gu màgge noonu mënatu la am ci Sénégal kon defe naa keroog seen gan nga wane na ni Cheikh Amadou Bamba ak Seydi Hadji malik ñoo ko bokk diine ji ñoo ko bokk tariixa bi lépp di benn ci baaxu yàlla kàttanam kenn ku ci nekk rek am foo jàpp Seydi Hadj Malick am na fu mu féete Serigne Touba am na fu mu féete ñoom dañoo séddoo kii dem ci arme maire kii toog ci arme de terre <laughs> kee dafa dem ci géej gi liggéey fa la fa liggéey kii toog ci teer bi liggéey fi la mu liggéey ba seen liggéey yi pare Sénégal am na cër Sénégal am na martaba senegal am na mbaax te yaakaar naa ne cër yi ak martaba yi ak mbaax yi incha allahu day jëm kanam waaye dootu dellu ginnaaw. kon ñu ngi ñaanal sëñ Modou Makhtar mbacke ci jamm ji mu bëgg ci Sénégal bëgg ko ci këri diine yi bëgg ko ci digënté sëriñ ci bëgg ko ci julit yi yalla nako ci yalla jappalé jàppale tiwaawan yépp jappalé nañ ko ci xulafaaw yépp japp nañ ko fi jappalé nañ ko ci nit ñu bax ñëpp jappalé nañ ko ci kon nag loolu yalla na sax te yalla na dëgër te yalla na yàgg maanaam ànd ak guddugu fan ak wér fu lu mu mën a ak salaam ak et eh, man nag eh, daanaa waxtaan waaye diggante at yi yaram bi dafa xaw a sutaate diir 2011 ba léegi génn ma sama nekk wàcc ma sama laal eh, waaye nag it alhamdulilah rabbil alamina yàlla na fekk tey moo gën yàlla na fekk tey moo gën moo tax ma ne xam naa mbokk gi ngeen di wax dinaa ci laal tuuti rek ci baaxu yàlla kàttanam te jox ma sëriñ Mouhamed sëriñ Mor jàmm si sama rak mu àggale leen waxtaan wi. mboq gi dafa doon loo xam ni du lu du lu nëbbu du lu làqatu du lu sori. du luñ tëj kenn rekk la di génn góor ku ñuy wax maam Mara yàlla jox na ko ay sëtam mu jox leen li mu am ak li ko yàlla jox maam Mara Mbacke yàlla baaxee na ko mu takk ñaari soxna kii Farimata la tudd kii ay la tudd Farimata nag moo jur Amadou Farimata Amadou Farimata moo jur Mati Mbàkke moom lañ jox maam bu na ca Jolof mu jur ci Ahmadou Ousmane Ousmane moo jur Seydi Hadji Malick mi taal Tiwaawan taal fi diine ba ñëpp di seen jéenéer ba taal fa tariqa Cheikh ba ñëpp di seen jéenéer ba defar fi ak bokk ci diine ba lépp a defaru kon kooku yaakaar naa ni moom it fa ma taxaw taxaw na fa ci teer bi kii di Cheikh Seydi di eh, maam maam Aysa moom itam jur ku ñuy wax Balla Aysa Balla ci jur Momar Anta Sali Momar Anta Sali jur jur Cheikh Amadou Bamba kon kooku itam tabarakallahu defe naa ne liggéeyam rëy na ku dem Touba da nga xam ne ka fa nekkoon liggéeyal na yàlla liggéeyal na diina ji liggéeyal na tariixa bi mu yor ndax it tariixa bi eh, tarixa ñoom bi ñu yor kii di muridiya kii di eh, tijaniya xoolal Cheikh Ahmadou Bamba bàyyam bi ko jur tijaan la Seydi Hadji Malick bàyyam bi ko jur xaadir la kii ngi jóge ci Assane kii ngi jóge ci Ousseynou Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi meññ jóge ci Assane Assane Fatima Rasulullah Ousseynou jóge ci euh, Aliyu ak ak Fatima Fatima Rasulullah kon Rasulullah jógagul ci at suuf si ba tey liggéeyam fi nekk ma fi nekk diine ji ko dénkoon moo fi nekk tarixa bi mooy diine ji tarixa ak diine kenn mën a taqale benn rek lañu ci baaxu yàlla kàttanam eh, danaa ci nettali rek ngan gu am solo di ngan gu neex ah, Cheikh Ahmadou Bamba bi muy dem ganaar dafa jaar romb ngambu ci li wala daal ci dëkk yooyu fekk fa Seydi Hadj Malick mu laajte ni ko nekk fii ñu ni ko ku ñuy wax Malick Fa Wadd boobu defe naa demagul Makka mu ni ko fekk fa soxna Roqee Njaay mu yoon teeg moom mu ni ko mën a Ahmadou Bamba dama fiy seet sama mbokk bu ñuy wax fa Fawad moo ne ko ah, dafa nekkoon ci kurus de defe naa fan yii waaye nag ndigal ma yëngu ba xam bi mu ko waxee ko fay seet rek moo ne ko ah, nañ ko wàccee te dalal ko yaakaar naa ne ginnaaw timis li may def dana àgg e ba ñu fa demee ba bokk seen waxtaan wa defe naa mat na ay guddi wala mat na ay bëccëg e, ba mu ko ne damay bëgg a tukki dem gànnaar ndax xam-xam bi ñu war a jàng fii lépp jeex na li ñu war a wut nag ci diggante aqiqaak sariyaak baati nag lépp ah ma am rek lu ma ci war a dolli ma bëggoon nag nga waxtaan ceeg man mu ni ko doomu soxna nga doomu soxna kenn du ci waxtaan kenn du waxtaan moom danga koy won yëkkati jawaarul maani teg ci loxom yëkkati rimaax teg ci loxom bi mu defee loolu ci baaxu yàlla kattanam Cheikh Amadou Bamba jër ah, jawaahirul maani ba mu jeex mu yor rimaax ba mu jeex mu ne moom day waxul jawaahiru maani bi nga xam ne Cheikh na Tidiane Chérif liggéey na ko waaye rimaax bi Omar Fuuti yu liggéey rek moo ne ku ci ku bëgg a àgg ci yàlla wala ku bëgg a am maarifa wala ku bëgg am wilaaya jàpp ci danga am maarifa da nga am wilaaya wa man yurid nay la asrarin wa maarifatin fala yufaariqu rimaa Cheikh na Omara kooku Cheikh Ahmadou Bamba moo bind loolu bon ba ñuy tàqalikoo nag jàngoor gaar taar ba waxtaan waa mbokk gu rafet tarixa cheikh bi fa doxal ak tarixa xaadiri bi Cheikh Amadou Bamba yoon ñu doxal ko fa yëpp ba waxtaan fa seen waxtaan yi am na loo xam ne kenn ko génne ci yu mel nii eh, ba muy yéeg ca suba jël na xalima gi bindaat ni ko ma taxastu qalila kuntu aarifuhu moom Cheikh Amadou Bamba ila jaaltuka fawqa kulli furut ni ko eh, bokk gi ñu bokk maag yow deret gi ñu bokk maag yow diine ji ñu bokk maag yow tarixa yi ñu bokk maag yow liggéey yàlla yi ñu ma teg ci sa kaw dootuma ci am benn xarit bu ma teg ci sa kaw lépp tey def naa la nga nekk seen kaw si baaxu yàlla yàlla jox la ko jox dellu si tabarakallahu sa kàtt ci nekk ko ci kenn ñu bokkaat seen toolu diine aha kenn ku ci nekk di jëwriñu yàlla kenn ku ci nekk doxal ba tey jii tabarakallahu ci Sénégal ak ci diine réew raw ah, ah, néew na réew mu ko am rafetaay baax gerte gaa mag ga kon ci baax yàlla kàttanam ma am benn bis nag foofu rek laa koy nekk lee ci mag yi nekk ci Touba mais euh, dafa soxla benn téere am solo moom Cheikh Ahmadou Bamba lu set daal bu gën a wóor daal réew mi dugg dëkk yi seet naa ko fi aw ma kay dem ndar te booba ndar kuy utile rek ko lay def taalibe boobu cheikh am boobu dem wër ndar ba mu jeex dem naa ndar ba ndar jeex nga suñ fépp amul si di xaaj maa ko wax dëgg këri boobu dafay xaw a màgg waaye taxawal yendu muy yendu muy kër kër ci téeréem di kër kër ci téeréem di kër kër ci téeréem moom alaaji Maalik ba génn ci benn téere boo xam ne ni ko daal di ci bind boo xam ne waxtu woon naa ko waaye fii na ma xool duma ko Sëriñ Tuubaa téere boobu joxeen bu rafet waxin bu rafet ne ko yaakaar naa ne boo ca jotee sa maru téere bële dana tey ndax daanaka ñoo bokk lu ñuy wax xam nga loolu loo am solo la kon nag ngeen baal ma ko nii ma ko waxee sax su ma demee ci biir dana ma indil ay coono bi ci des nag waa xel mi ah, ah, ah, ni ma ko bëggee woon yaram bi tax na mënuma koo wax waaye lu ci juum dama Sénégal yëpp baal lu ci damm dama Sénégal ci yàqu dama Sénégal yëpp baal xam ne yéene naa mu baax yéene naa mu rafet yéene naa mu sell yéene naa mu tedd yéene naa ñëpp Sénégal tedd ci barke kër yi yéene yi rawatina a ak Tivaouane waaye kuy këru diine ci Sénégal rek yàlla na yàlla jox teraanga jox la di ndimbal jox la nasrullah yàlla na ko yàlla def te sunu xarit bi nekk di sëriñ Cheikh Amath Diagne comme li ma leen ko waxee rek noonu laa ko tëjee di la wax ni wax dëgg yàlla yonent su mel na ni bi ñëw ci moom it yàlla mën naa dogal ku ko jox danañ wax ni jamu ko naka koo xam ne wax dëgg yàlla mën nañu wax ni say maam say bàyyi ñëpp xalifa cheikh lañu boo jëlee xalifa cheikh ñëpp danañ ko rafetlu te ñëpp danañ ci ànd te ñëpp danañ ànd moom ci liggéey yi ànd ko ci ginnaawu kan sëñ Abdoulaye Si kon sëñ Cheikh Mati Diagne sëriñ sëriñ Cheikh Mati Diagne si yàlla ko yàlla ko lu gudd ak doole ko gër te ñu gën ko may ko yóbbu bari xam yi ëpp njottam yóbbu diine ji ëpp njottaan liggéeyal diine jëg tarixe bi lu ëpp njottam àggal ko fu mu mës a àgg def suñu te seen bët sa def yàlla na ko yàlla defal seen yàpp ñoo ko joxe tam li mu doon liggéeyal sëñ Babacar Si yàlla liggéeyal sëñ sëñ Cheikh Anta Anta lu ko ëpp li mu doon liggéeyal El Hadj Abdas yàlla liggéeyal sëñ Cheikh ko ëpp doon liggéeyal sëñ Mansour yàlla liggéeyal sëñ Cheikh lu ko ëpp ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaawam ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaawam sëñ Cheikh si tey ak ëllëg di ñaar sëñ Modou Mokhtar rek yàlla na yàlla nañu daan ñaanal sëñ ah, Saliou yàlla na yàlla na fi yàgg tuwél sëñ Modou Mokhtar rek na fi yàgg te wér waaye nag it sëriñ Cheikh it yal fi yàgg te wér yéen ñii fi ñëwee ci lu Tuubaa am ci leer yal na ngeen ci tibb ba tawee lu Tiwaawan am ci leer yal na ngeen ci tibb ba tawee ñun leen teeru itam leer yooyu yëpp yal na ci tibb ba tawee ngeen baal ñu bu nañ ci bismillaahi rahmaani rahim yal nañ ko jeexal alhamdulilahi rabbil alamin yal nañ ko fekkee yenn at yu bare bare bëri ànd ak fekkee tal ak rafet ak rafetu fekkee di baaxu yàlla kattanam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ma jox leen sama rakk nag mu waxtaan ak yéen ndax xamatoo man li ñuy yaram bi ak yooyu waaye ngi dama ñëpp ñaanal rek yàlla bëgg ñu wér ak jàmm ak sutura asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu eh, ginnaaw bi nga xamee ni yàlla dogal dogal na ko ba pare ci suñu Cheikh Mati Yatti Bakku ko defar bu rafet euh, fekk na fi jàmm mu yokk bu fekk fi yiw mu yokk bu fekk fi ak bokkoo mu yokk ko bu fekk fi ak ànd mu yokk ko première bi mu koy nekk ci xilaafa bi ku gis ni mu defee rek xam ni defe na lu am solo mooy lan mooy dafa jël rakam yi iya. ya, di len top len sëriñ Abdoulaye si sëriñ Abdou topp sama ginnaaw muy sëriñ Bay si moom ni Maodo mu Alaaji Abdoul Aziz ni sëriñ Bay si Abdoul ni pam malik na yow taxul sëriñ Abdou te di ko ci man may waxtaan ak yow ngay dem di waxtaan ak suñu kon mel na ni gam gi ci nek yeen ñep seetlu ngeen ko mu ni pam malik demal fekk sëriñ Bay ci ca sawee seeni xaaj Malick ni Maodo ci demal fekk sëriñ Abdoul Aziz ca sóori sëñ Tuubaa kat si ngeen gàmm ko moo dox daaw jéeg moo dox moo moo ba ren kon ci baaxu yàlla kattanam ngeen euh, xam ne rek jàmm bi lépp jàmm la lépp rafet na lépp tey na lépp yëwet na ngeen baal nu defe naa defeen bu rafete noonu kuy defee defeen bu rafete noonu ah kooku sa xalaat ñaawul te sa xalaat rafet na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim ñu ngi leen bu baax dem ziara di ko def ci nuyoo sëriñ bii di xalifa Baye Mbacké Sy comme ni mu jëlee nuyoo bi te ko ci nuyoo sëriñ Abdou Aziz Al Amine ba nga xam ne moom la ko xalifa général de Tidiane teg suñu kanam muy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane yi mel ni kàddu yi ah, du gudd ndax ah, am na heure boo xam ne ci saal sëriñ Abdou la war a fekk te heure da jot na mm-hmm. eh, tabarakallahu pour ñu war a dem ci buntu ba mm-hmm. ah, waaye nag yéen bu ngeen jógee Touba di leerlu point com ak Mouride TV ñu wër leen si ñoom bu présenté leen ko mu joxe ndigal li leen dal leen jàmm ah wane ni njaboot Sëriñ Tuubaa comme ni ko Sëriñ bi waxee léegi ñoo moom ci waawan eh, njaboot Sëriñ Hajji Maalik ñoo moom Tuubaa eh, fa tabaarakallaahu moo tax rek ma ci tegtaat waaye sëriñ bi li mu wax doon sëkk eh, wax na ko daanaka junj na lépp fu mu jeex mooy liggéeyu Sëriñ Hajji Maalik ci diine liggéeyu Sëriñ Tuubaa ci diine ñoom ñaar seen ñaari liggéey yi seen résultat benn bi moo indi màggalu moo indi màggalu Touba. benn bi moo indi gàmmu Tiwaawan mu jeex ñaari résultat yaa ngi waaw yi benn bi moo indi màggalu Touba te ku dem màggalu Touba xam ne liggéey ba réussir la. benn bi moo indi gàmmu Tiwaawan te ku ñëw gàmmu Tiwaawan xam ne liggéey ba réussir la. bu dee gàmmu Tiwaawan nag kéemtaan bi ci am. mooy boo ñëwee gàmmu Tiwaawan ku ci gàmmu Tiwaawan nga toog fii. bu ñu nee benn dëkk nga gàmmu ci Sénégal boo xamul Sénégal dama koy kon am na kéemtaan bu ci nekk. fa hmm. euh, tabaarakallaahu muy loo xamante ne nag Seydi Hadji Malick moo ko commencé. Euh, yaakaar naa laata boo commencé euh, fexe na ba gàmmkat yi kenn ku nekk mu bindal la bind ba gàmmoo li tax kenn ku bind nga ci mën a am day téere boo xamante ni mënu ko wax nii diw moo ko maîtriser ba mu jeex gàmmukat boo gisee rek am na lu mu ca maîtriser bu gàmmu jotee mu jël ca du ko mën a jeexal bu fajar jot Mm-hmm. bu gën a mu laal feneen muy miim yi waaw ci waxu mag ñi ñaar fukki fan ak ñett wala ñaar fukki ak juróom-benn ci la ko bind moom Cheikh Seydi Hadji Malick mm-hmm. te laata mu koy bind tamit bind na mag yi diine yëpp diine Sénégal leetar ci jàngaleem sëñ Abdoulaye Sall Amin bi bind ni leen maa ngi bëgg a dugg ci géewu yonent bi daal di bind miiw ya nga xam ne fa tabaarakallaahu وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نور النبي العالمي وفي دوغل سيدنا محمد بامير وصلت نقطة بامير بايو سيدنا محمد فين كون نعم. فتبارك الله مدير أبو أحمد ريني تي غام كدي يومبال نين لو باري باري سيدنا محمد واي موم نك بوم خامي ني القران موي لب القران لا غامو غامو نيوك wax naa ko te Touba ci Rawdu Rayaahiin te naafilaam yëpp daan naafila taw guddi ñaari rakka rakka bu njëkk bi mu def euh, xaaju kaw bi rakka ñaari mu def xaaju suuf ñu nodd fajar mu dem jàkka ja noddi moom it ndax ca kaw lay wax moom Cheikh Seydi Hadji Malick jiite nit ñi ci julli gi ñu pare lal malaan wërsëg yi mu jiite leen tëj malaan ni tëj ñaan gi génn ah mu joxe mission yi ci kër gi lal njàngale mi tisbaar jot mu ànd ak ñoom dugg ci jàkk ji julli génnaat ndax njàngale mi téere yu ndaw yi lañ dëkk jàngal ci suba gi bu tisbaar passé nag muy lal téere yu mag yi ba takkusaan jot mu dugg ci biir julli takkusaan génnaat mook mbooloo mi gan ñu wàccoon ci kër gi mu recevoir leen guddi gi mu recevoir ñu ngi ci war a recevoir du continuer ci jaamu yàlla ba sëkk ba daan ko laaj ndax maam li nga ko nelaw de moom kuy nit di nga ko def waaye man du ma toog di xaar nelaw du ma dem kër nelaw du ma dem kër nelaw waaw damay xam ne def na Eh, kooku nag fa tabarakallahu moo sos gàmmu ci Sénégal di ko doxal. Hmm. ndax ñoom ñaar ni ñu bokkee maam noonu la leen yàlla joxe ay may mu Serigne Touba ak Cheikh ak Cheikh Hadj Malick màggal nee màggal rek nga ne Touba bu ñu nee gàmmu rek nga ne Tiwaawan donte yaatu na léegi bu dëkk ba ñu ko fay def hmm. waaye bu ñu nee màggal sa xel dem tubaa waaye bu ñu nee gàmmu yi tamit sa xel dem Tiwaawan donte ne gàmmu yaatu na. ba dëkk ba ne ñu ngi ko fay def bis bu ne ñu ngi koy def semaine bu nekk ñu ngi koy def ko sos mooy Cheikh Seydi Hadji Malick tey moo tax ngeen ñëw tey fa tabaarakallaahu euh, ba ma sëñ Abdou Aziz Al Amin yabalee ngeen fekk ma faama euh, euh, sëñ Bachir Mbacke bu Abdou ñu waxtaan fa waxtaan bu yaatu ba tax tey ngeen ñëwaat ma jébbalal leen sëñ Abdou mboole ñu fa ci liggéey boobu la et gàmm googu nag ni ko Seydi Hadji Malick commencé ci alquran mooy moom Alaaji Rawaan Ngom def ne nañ seddoo kaay bi mu jël xaaju kaw ki jël xaaju suuf ñi ci des jël salaatu lefi ak asmaa yaal xusna ñu fanaan ci ba fajar xaaju kaw bi jeex xaaju suuf bi jeex loolu mooy njaal bennu gàmmu gàmmu yu njëkk yi wooy amul woon gàmmu yu njëkk yaay njëkk yu njëkk def nañ daan gàmmu boobu bu mosaan a woote gàmmu bi kaang yi ñoo daan ñëw wusi moom nag mu ngi ci biir di waxtaan waaye kaang yi kenn ko ne am na fooy taxaw sa morom taxaw fa ca des ngeen di daje kii commencé bàqara kii commencé euh, euh, euh, marème buñu ñu tourné wat bu fa jott jot kamil bi jeex loolu ma ci sam gam motax mag ñi xam gam deug deug deug deug hmm. bu ñu ci Tiwaawan bu ñu xëyee ci su gam li ñu jëk a def mooy wàcce alxuraan te loolu ku ko mën a def ba légui tamit lu am solo la ndax loolu moo gam ci Tiwaawan té fa tabaarakallaahu euh, loolu bi lu gam ga ñu eh, ko doxal day diko doxal sëñ Abdou nee mu am bis nak ben gam nak euh, place bi xawa yarax muy nak ne nag sama gam muy yarax joxe naa digal képp ku ma mës a jàngal képp ku ma mës a yar bu gàmmu jekkee loo jàpp na nga ko bàyyi nii fii hmm. ba ngoon saani waaye nag ginnaawam la ko sëñ Babacar Si woote nag waaw gën koo woote nag fa tabaarakallaahu ba ni ko seen xaaj ab da baax gën a woote waate ni bu ma sañoon ni Seydi di Malick joxoon ndigal pour ñuy gàmmu ci bisu gàmmu gi ñun ñëpp lañ am ànd xormaal Seydi Hadj Malick ndax daf ci am benn benn yoo xam ni daf leen joxoon ndigal ne leen yéen fa ngeen dafa sori ndax boobu mooy transport yomb hmm. daanaka loolu jublu woon bu ñuy déplacé wu di ñëw di gàmmu si mu leen te am ngeen xam-xam toog leen foofa ngeen gàmm léegi nag bi transport bi yombee day eh, fa tabarakallah suñu Babacar Si euh, mu yaatal ko ñu bari di gàmmu si ci xilaafaam Cheikh Hadj Abdoulaye Tabax ñëw waxaat sëñ Abdou mu déclaré waat ni nañ ñëpp bàyyi seen gàmm ñëw ci gàmmu si de Hadj Malick bi bu jeexee ñu jàppal leen bis ba ñu sa bari ginnaaw gàmmu Tiwaawan lañuy gàmmu ñoom hmm. te eh, fa tabarakallah comme ni ko sëriñ bi waxee léegi loolu di dox euh, ci dugg sëriñ Babacar Si lu gën a yaatu lu gën a yaatu tey fa tabaarakalla am na ci loo xamante ni sax euh, du aay sax pour ñu leeral hmm. ndax lépp loo gis rek dafa am fu muy ndax mag ñi bu ñuy woote dañuy woote ngir yàlla hmm. waaye woote wuñu ngir ku leen jox woote wuñu ngir laaj kenn moo tax Seydi Hadji Malick ñaareelu gàmmoo wala ñetteelu gàmmoo ba nit ñi ñëwee ci kër gi te kër gi daaraa lool mu dugg néegam rek toog jàpp njàmbur moom mii di xalifa Baye Mbacke wuy juróom si maam Ahmadou si jur ko maam Ahmadou si maam Mati ak maam Tafsir Demba Bunda hmm. ah moo ñëw sol mbubbam rek dem seeti benn sër bi wala lenn sam bu bari nag turam nu mu tudd Sele Xule Sele Xule ni ko dama ko ñëw kat si Seydi Hadj Malick sama màgg laa jógee yónni wu ma nag yónni maa yëg rek ni kër ga gan ñaan fa te ndawal soxla nañu hmm. te gis naa ni amu fa te xam naa ni du ko laaj boo bëgg laa baaxee nag yow mu bëgg gàmmu gi sama mag ju baax ji woote ak sama sëriñ bi nag bi fi war a njëkkër yi mu bëgg yow nga jox ma ko ma yóbbu ko hmm. kooku it di ku xàmmee di ko baax di ko gisale xule muy famille xule yi wër Tiwaawan nekk nii yëkkat jox ay ndaw ñu wommat indil Seydi Hadji Malick soo bàyyi ñoom Seydi Hadji Malick am na lu ma indi ne te ñun waaye ma nag mun ko lan la mu ne ko xool mu génn gis mu yëpp mu bëy mu ko maa la demal ci Seydi Xule ndax gan ci kër gi te ndawal soxla nañ ko ci kër gi ndax li wax kilifa da koy darle mm-hmm. waaye bu ko daan seen xaaj ma daal di woo ko ñu wax bàyyi ndox jox ndigal sama bàyyi ñu ko na taxaw loolu ñu defar ko waaw ah, séddi la ko jigéen ñi ñu doom ko gan yi man gérer loolu mooy gàmmu Tiwaawan mm-hmm. seen nag maanaam lay yokk ndawalu gàmmu gi mu teg ko sama loxo bàyyi mu bind leetar yi mu xàttal yi ba tey lii dee ci gàmmu Tiwaawan kenn xamul lu mu toll ba ci wanat bii dee wala xam ne bay mbàkk fi dee ci ay nag kenn xamul lu mu toll lépp digalu seen Hajji Maalik la jógee ci tarbiye boobu sama bàyyi tarbiye woon seen Hajji Maalik ci la jógee kon gàmmu Tiwaawan day fa tabarakallah dafa am ay cosaan euh, ni ñu ko waxee léegi cosaan bi mooy alquranu karim cosaan bi mooy xamal nit ñi kan mooy Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ndax lan alquran moo ñu sant wa ma ataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lepp lo xam ne Muhammad diglé nako ko na ngeen ko japp ngeen def ko lu mu tere ngeen bayiko wa kon qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah batay lolou day wone ni yalla day signalé ni lu ngeen bëgg ci man rek na ngeen jaar ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon fa tabarakallahu ah, ñu gattal kaddu gi euh lolou ma leen doon wax ci ciosani gamu Tiwaawan ci la bok ak yeneen ak yeneen waye khalifa bu mu ñëw rek gëna yaatal waaw khalifa bu mujj ñëw gën yaatal bi sëñ Babacar toogee ni mu yaatale ubbi mbir ñi woo mu xaddam yi yaatal gàmmu gi fa tabaarakallaa muy dox defe naa ni ñu ngi may nettali réception bi gouvernement Sénégal njëkk jabal ay nit bi sëñ Babacar def ni nañ day jàkka ji bi mu egsee nuyu bi gërëm leen sant leen seen coono tournée ñu taalibe yi ma wax ak yéen waaw euh, si ñu organisé daal ni kon gouvernement bopp ci organisation COSCAS. COSCAS takk ndiggam seen si organisé ko te boobu dem seen Abdoulaye dafa am at moo xam ni événement dafa am ci réew mi tombé élection boo xam ne dafa tombé gàmmu Tiwaawan amuñu soldaar yu mën a taxaw sécurité bi na am nañ taalibe yu ko ma taxaw. te lañ organisé COSCAS ñu laaj seen cheikh COSCAS maanaam lan la war a wundu ak lu leen war a xàmmee bu bind alif laam miim jox leen lii la mooy seen emploi loolu foofu la sos COSCAS sosoo tey seen cheikh di ko yaatal. bàyyi ko ci loxo Sëñ Abdou Aziz mu gën a yaatu ba COSCASTEL bi mu ba lu soldat bari bari ci dëkk bi tey boo ñëwee di nga fekkoon membre COSCASTEL ko loo xamante ne nii soldat taxaw rek alkaati taxaw fa rek gendarme taxaw fa rek membre COSCASTEL dina fa taxaw tey. tey tey yi nag jamono bi ñu toll nii moom Ousmane Samb sëñ am teko jëla moom mu jiitu ko mu président bi ak ñam ko àndal fa tabarakallah kon fa tabarakallah mu juru gàmmu ci rawal ah ci gàttal rek foofu la commencé di dox ba egsi jamono bu nekk ka toog nekk xalifa bi dañ ko yaatal ndax Cheikh Hadj Abdoulaye Dabakh bi mu ñëwee kenn ku ne gis nga lam ci liggéey ak lam ci yaatal Serigne Mansour bi mu ñëwee kenn ku ne gis nga lam ci liggéey ak lim ci yaatal Serigne ko Serigne bi waxee yëpp nag li ñu ci gën a neex gën ñu cee sax moo ñoom ñu ñëpp kenn ku ci nekk ba nga ñëwee sëñ liggéey nga àndal mu jiitu sa kanam mu xàllal la nga jox ko ndigal mu doxalal la nga yónni ko mu demal la kon yàlla yàggal ñoom waaw ñaanal ko yàlla fi yàgg ah, ñu delluwaat rek jëlaat ñaan bi sottiwaat ko ci kaw sëñ Sidi Mokhtar Mbacke Papa général de Mouride nga xam ne tey mooy sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh mooy moom mooy sëriñ Abdou sëriñ Abdou mooy moom ah sëñ Bassirou Abdou Khadir nag eh, li ma waxoon ci Touba rek heure man bu ma ko gisee sama xel sëñ Abdou lay dem waaw bu ma gisee sëñ Abdou sama xel dem ca moom ñoom ñaar dañoo bëggante bu ñuroo ay mbir ko ñu ñaan yàlla ñoom ñaar ñëpp yàlla yàlla sàmm leen yàlla aar leen sàmm njaboot Seydi Hadji Malick bi sàmm njaboot eh, sëriñ Touba bi yàlla may ñu fan gudd bu ànd ak wér fekkente bi itam yàlla yàlla waa ni Sëñ Abdou di yabale ñu di leen fekk si ci Touba yàlla yàgg yéen itam ni ngeen ñëwee ci diggalu kilifa yi tedd ya yàlla na yàgg ngeen di ñëw xam ne kër gi seen kër la e, fa tabarakallah ñu gàttal kàddu yi e, bul woon ak e, heure bi jot nii tey ñu gën a continuer waaye gis nañu wax dafa dox dafa doy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu comme dañ ko bëgg a ànd ba gàmm bi jot incha allah waxtaan bi dina gën a mën yàgg